da ngay jékki-jékki rek débarqué kër nit noonu bu ngeen di ñëw du ngeen woo te du ngeen tàggoo. waaw ah, papa ah? papa yow nan laa lay nan laa lay kii ñu ñu ngi lay woo kenn du la jot. ñu yaakaar sax sa téléphone. waxal ndànk waxal ndànk waaw waaw ñu ngi lay woo duñ la jot. foofu lu may doxatul dara doxatul. sama yaay dafa jaaxle xale yi kër gi ñëpp a jaaxle man de ma jàpp yoonu suuf bi jëw ji pour jëw si yow loolu def ma ñëw. si yoon si ñaay bi laa jaar. fay ay jakarta kii fay naa sax pour ñu mën a ñëw fii rek ndax yoon bi mooy lool lan laa soog nu ma nekkee sama doom yow loo xam. naka loo xam ci sama doom la. waaw déglu nag dama lay wax ni nga tëj salaam. waaw te umpaañ waroo xam kii sama doom la. bëggoon mu yëg déedéet ah bu ko yëgee musiba am di. Ah. te yooyee sama xale. man ma ko wax. waaw. ma bàyyi ma waat ka. yow nga seen seen doom ni jaay kii kan la yéen nit da ñëw kii kan la ah bu ko yëgee musiba am di te yooyee sama xale man kay duma ko waaw ma waat waat waat

alaaj Mour Ndiaye laa ko tuddee sama xarit boobu alaaj Mour Ndiaye sa xarit bi waaw moom nga ko tuddee sama xarit boobu dem deewoon waaw kay moom ko tuddee laa ko tuddee na bëggul bëgg sama waaw waaye bëgguma seen mpaañ xam ne sama doom la waaw sama sama mpaañ nit boo ko suturaalee yàlla da lay suturaal waaw kay xoolal suturaal leen ma rek waaw boo ko yëgee da koy ñëf fexe bu mu koy du ko jëg du koy doon day sa lam bi dem waaw fen weeru koor sax baaxul kenn fen kon kon sama rakk la ah? sa sa cousin la. sama cousin. waaw waay cousin waay. <laughs> eh cousin yow. cousin. Eh. ko wax de. ah bu ko wax. yow yaa war a téye sa laaj. Ah, man xam nga du ma boole sama bopp. te ko wóorul de te nga jëkkale boole sama bopp. yéen doo ko tay Ah, man duma boole sama bopp bu génnee damay xam ne yow yaa ko wax. non non non ah, dama lay wax rek. waaw waaw. maa ngi dem yalwaan ji. waaye yalwaan gi nag danga may lu soo rek toogal fii ci kër gi. mu toog waaw tey am nañ lu ñu dundee bañ toog noonu. Hmm. waaw. Mbaye. ça va yaa nelaw nga bu baax. alhamdulilah. takku nga de na sa kii boobu ndigaloon nga takk noonu. waaw fii du dëkk ba la. fii du dëkk ba na ko ko waaw. baaxul bët baaxul. fooy dem ni bul de balaa ngay réer ndax sa nijaay daa woo tar moom mu nekk fi di la wëri waaw. ci gàllaa dem naa ma dëkk xale dëkk ba. waaw. doo laa bëggoon a tiital. def tiital moom doo laa bëggoon de. Mbaye. yaa ngi yéen. ça va. yaa yaa yaa ngi ci ndugg bi. bu baax. nelaw nen nelaw nen bu baax a baax kay. ça ko lii nii la mel. bàyyi nii la mel nii la ko rek yéen ñaa nag fu ngeen nekk comme rek. dafa la lee. kan may xaj bi. ah. kan may xaj. léegi may muus bi. kon yow yaa xaj. eh <laughs> may xaj. ku nekk naa wut yaa man ni may muus. Ah. ñaari muus ñu ne kan la kaña. Ah? Ah, yow la wala doon nag. <laughs> kañ bi kañ la gën a nuróo nag. ah loolu la kaña. ça bien. moo gën ñu wax ma leneen. naka koor gi mi ngi saf. waaw mi ngi saf. tey yëguma ko noonu yëpp de. Hmm. waaw Massa de mi ngi noonu rek. si si yéen a ni ni ni ni mu nawee sama nijaay. ah eh, suma nawee sa nijaay kan lay nopp. ah yow yow duwoo ah ma ci aaw aaw bu ruge sa nijaay bëgg ma bëgg a meew. jarul kale. Ah? jabar gi dañuy dugg si léegi kër gi de moom mi ngi noonu rek. Eh, ah, waaw baax na. baax na bàyyi bàyyi noonu buntu bi yow. waaw bàyyi bàyyi ko noonu. maa sori woo woon. fii laa ñëwoon fii ah ci biir. booy booy booy jógatee day laal li nga tëddoon sakke nga taram. ay yow tamit ñaa ngi ko bàyyi dañ dafa sakke kii dafa sakke kii kii xaa xamul xamul yeelaa te ñi ñi ñi dëkk ñi ñii nii bu ku ci xamul yeelaa da nga kaa war a ñuus ne ko yeelaa. waaw mais bu deful ngeen defar rek bu mu nekkulee fii yéen ko daan defar defaral leen rek yaatal leen seen xol bi ku ñëw ngeen bëgg ko. ah waaye kii kan ma la wax dañ ko bañ kii seen jarbaatu ni jaay la kan ma la wax dañ. ah seen jarbaatu ni jaay la. waaw waaw comme yéen kay. lan la la wax lan la kon. waaw seen jarbaatu ni jaay la la wax ñaan ko looy def nii sëñ bi def kii naan ko di seen jarbaat ni jaay la du yéen a bokk seen papa yeeg seen yaay yi bokk ndey ak baay. kër kii nii. waaw oh. xam nga koor woor kenn kenn du wax lu dëgg yow. manu ba lay wax nii. kii kii laay waxal ñaan ko laay kii. ñaan ko laay waxal bu ñu la xamal ah. bu ñu la xamal day day mel ni ku feebar. kan kan kan moo bëgg a feebar. mu ngi feebar bëgg am lu mu génne wala kaa génne. yow mi yaa bëgg a wax yow mi yaa yow mi yaa bëgg a wax. yow mi yaa bëgg a wax sama yaay moo jukki la ko ko way xola mu ki daa am kii. moom mi moo ko bëggoon wax. fekkat mag la. yow mi yaa ko bëggoon wax yow. Ah? sa nijaay moo jur kan wax wax nga. sa nijaay moo jur kii.